nangu ñoo bañ duñu ko nangu moo tàngee loraangale duñ ko nangu duñ ko nangoo duñ ko nangu ñun boobu moo doon suñu way tey dañu am métti ndaxte réew mi nit ñi ba léegi am nañu fayda jóg nañu Guy Marius nag dañu ko tooñ dañu ko këf en français c'est un otage or les otages bu faut les libérer Guy Marius dañ ko war a libérer c'est un otage parce que ñu tax ñu jàpp ko am na ñu def lu ko yées ñu nga xam ni bu ñu demee bu leen neexee ñu dugg pare ba def ko lu leen neex di yow samba boo yooyu te kenn dara fekku leen bon gouvernement bi la ñuy waxal étudiants yi wax nañu man professeur Doudou Mbaye Sall jàngale naa kon étudiants yi mobilisation bi ñu wane travailleurs yi l' ensemble des syndicats des mouvements sociaux dañu ko war wane combat bi Guy Marius di mëne combat boobu syndicats yi ñoo ci waroon jiitu électricité ni ko yokkee normalu ndox mi la vie est chère bon nag le syndicat yi jël seen jël combat bi Sénégal yi dundaat du on vaincra we shall overcome gagné ci kanam ci ci naaw naaw naaw yàgg-yàgg dal kon fii lu ne fekk nañu fi am nañu fi nekkoon démb di bajantu ci kaw askan wi anañu anañu fi nekkoon bërki démb ci kaw askan wi anañu kon Macky Sall bu bajantoo ci kaw askan wi tey jii duñu saf tey jii duñu ko faale dañu koy wax di ko ñaan na delloo xelam na delloo si mu wàcc Guy Marius Sagna mu wàcc askan wi bàyyi Guy Marius Sagna mu ñibbi këram di ko waxal ni Macky ni baayu Guy Marius Sagna saraxewul doomam ndayu Guy Marius Sagna saraxewul doomam askan wi saraxewul Guy Marius Sagna kon li daloon Omar Blondin Diop fii ci Gorée bu dalee gi Sagna Macky na ko xam ni palais de la République am boobu du ko ca génn chers compatriotes les du père de Sagna ont ému le monde entier. Les larmes du père de Sagna ont touché le profond Sénégal. les larmes du père de Guy Marius Sagna ont touché tous les cœurs sincères. Les larmes du père de Guy ont touché toutes les consciences justes. Les larmes du père de Guy constituent un avertissement solennel pour notre pays, car l'humiliation, les larmes des humiliés, constitue une maladie plus grave que l'épidémie du coronavirus. Les larmes des humiliés sont plus mortelles que l'éruption d'un volcan dans un pays. Les larmes des humiliés sont plus graves que le déluge parce que les larmes des humiliés peuvent engloutir même les innocents. les larmes des humiliés, des nous précipitent dans la nuit, qui nous précipitent dans le chaos, qui nous précipitent dans l'apocalypse. C'est pourquoi cette bataille n'est plus une bataille politique depuis les larmes du père de Guy Sagna. C'est devenu une bataille morale, une lutte morale, une insurrection des consciences, une insurrection de l'humanité. une insurrection la violence. Cette lutte est devenue une lutte morale parce qu'elle est une lutte contre l'injustice institutionnalisée, contre la violence institutionnalisée, contre la domination, contre la persécution, contre toute forme de domination dans notre pays. Cette lutte est devenue une lutte morale parce qu'elle est une mobilisation pour la justice, une mobilisation pour l'égalité, une mobilisation pour la paix, une mobilisation pour la stabilité. Mes chers compatriotes, dans cette affaire, Guy Sagna ne peut pas être malheureux. Vous savez pourquoi? Parce que nous pouvons lire dans l'Évangile, heureux ceux qui sont persécutés parce qu'ils luttent pour la justice. Guy Marius Sagna lutte pour la justice. Guy Marius Sagna ne peut pas être malheureux. C'est la raison pour laquelle nous disons Macky na dem bàyyi ñu ci jàmm ñu dund ci jàmm Guy Marius Sagna dellu ci baayam dellu ci njabootam wasalaam. Libérez Guy Marius. Libérez Guy Marius. Libérez Guy yi sénégalais ñu ngi leen xam nga li may njëkk a wax mooy lan mon père maa ngi lay baax am na yàlla guddal sa fan defal na jàmm defal la sutura xam nga li may wax mooy lan képp ku toog sa kër yéen a ngi seetaan télé yéen ñëpp di déglu ñi toog seen am jot ak ñii dañoo sawar ak dem liggéey ak amuñu métier isa képp ku koy wax na wax ma kenn na la joxoon drapeau Sénégal nga taal maa ko képp ku koy wax rek bu la joxoon drapeau Sénégal nga taal ko Guy Marius Sagna lii mu xeex buñ dugal ko ci kaso bi muy courant bu seer mu koy xeexal ñëpp di ko xeexal ba ci homme de tenue yi taxaw di ñu garder man maa taxaw fii ci télé bi déglu ma déglu leen ma man maa taxaw fii ci télé bi ma ne Macky Sall la secrétaire général bu APR ma ne ko suuf si ngay yël di ko jox mbër yi di ko jox fecckat yi daggalal policiers ay terrain pour ñu am suñu dëkk parce que amuñu suuf man maa wax Macky Sall maa ko Macky Sall policiers bu ñu nekkee ci caserne yi ba seen bañ ba ñu retraité bu ñu leen di génne si anam bu ñaaw lañ leen di génne te du yoon man maa ko wax man maa ni Macky Sall homme de tenue bu ci retraité billahi boo ko fekkee ci location lay nekk ñu ci bëri gën leen di yërëm man maa ko wax man maa ngi Macky Sall statut administration pénitentiaire ñun ñun ñëpp kaso yombul kenn mais pénitentiaire yi kuy sonn ñoo la gën a sonn xoolal bu ñu defee concours ba deux cent cinquante ci wala trois cent dafa am ñoom ci seen biir ñoo xamante ne dañuy dem moo teg ko defaat yeneen concours bu concours yooyu jàllee ñu bàyyi yi un citoyen qui n'a pas volé notre pétrole ni notre gaz. Un citoyen digne qui ne fait pas partie des voleurs qui ont été épinglés par la Cour des comptes et qui continuent de parrainer tous les Khawarés à Dakar sous la bénédiction du président Macky Sall. Chers Vous l'avez tous remarqué, depuis des mois, à travers Lank, nous avons suffisamment alerté, nous avons suffisamment parlé, nous avons suffisamment marché de Fadoïsek. Malgré tout ce que nous avons fait, le lion qui dort au palais de la République est resté sourd à la clameur du peuple qui réclament tous la libération du patriote Guy Marius Le lion qui dort au palais est resté insensible à la douleur qui frappe la fille de Guy Marius Sagna qui, en ce temps de carême, attend le retour de son papa. C'est la raison pour laquelle l'appel que Nyolank vous lance c'est de continuer et d'intensifier la mobilisation. Ñoo lank dit solennellement ici au président Macky Sall que la prochaine fois que nous sortirons, il saura qu'il n'a pas affaire à des poltrons. Il saura qu'il n'a pas affaire à ses propres sujets. Ñoo invite enfin le président Macky Sall à les armes. Il ne peut pas gagner ce bras de fer qu'il a engagé contre le peuple sénégalais. Sénégalais, nous allons tous et très bientôt remporter la bataille de la libération de Guy Marie et remporter enfin la bataille de l'électricité, la bataille de l'eau. Merci, merci, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Wow, Badet. est-ce que Guy Marius Sagna mos na liggéey kut ba jëndee ñebbe benn kilo ñebbe juróom-ñeenti téeméer est-ce que Guy Marius Sagna mos na liggéey poste ba randal ay milliards est-ce que Guy Marius Sagna mos na liggéey Prodac ba randal ay milliards est-ce que Guy Marius Sagna mos na liggéey domaine ba randal ay milliards est-ce que Guy Marius Sagna mas na liggéey service de de de Louga ba def bul foo usage de foo est-ce Marius Sagna am na kër bu ñu jëndee xaalisu drogue est Marius Sagna mas na am quota engrais mbaa quota semence est-ce Marius Sagna mas na def foo bie waaw lan moo téye Marius Sagna lan moo Marius Sagna xam nga lan moo ko fa téye Guy Marius Sagna bokkul ci association des prédateurs de la république association des prédateurs de la république Guy Marius Sagna lan moo ko bàyyi kaso Guy Marius Sagna ñeent ñeenti délit la def ñeent premier délit Guy Marius Sagna dafa bëgg réewam deuxième délit Guy Marius Sagna dafa bëgg askanam troisième jëli kii Marius Sagna dafa bëgg Afrique quatrième jëli kii Marius Sagna dafa foog de foog jëli yooyu la ñu Marius Sagna kon nag mbir la lutte sera longue peut-être la victoire nous l'aurons parce qu'on ne peut pas un peuple un décidé je vous remercie mes frères. merci beaucoup. loo mënti yor te mu mën a boo leen yeewoo lundi ñi amul oto ak ñi nga xamante ne amuñu moto à partir de 17h30 nañu jënd ay mbiip mbiip bu 17h31 yëpp ñun ñëpp ñu mbiip klaxonné pour la libération de Guy Marius Sagna lundi inchallah Fallou Thiaj ara Fallou Thiaj vous avez la parole moom waa Sénégal daa am benn laaj bu ma leen bëgg laaj salaamaaleykum li ma leen di laaj mooy lan moo tax Macky Sall ku yëngu mu dugal la ci kaso bi. en réalité dafa ragal kaso tapet la tapet bu mag la liñ leen di wax mooy ñun ñëpp gis nañ. papay Guy Marius Sagna taxaw wax ba tuur ay rangoñam daa am nag lu wolof wax nee na gaynde du jur xar ñépp xam nañ ni Guy Marius Sagna gaynde la kon baayam gaynde rek la mën a doon Macky Sall li ñu koy wax mooy am na loo xam ni mënatuñ koo maye te gis nga guerre day sax mondial mënatuñ nekk ci réew mi benn yi minorité taxaw di ay sàcc yu leer nañ yoo xam ne ñun ñëpp xam nañu c'est des voleurs ñuy jàpp nit ñi di leen tëj ci kaso bi ñoom ñi nga xam ni tey ñoo mérité dem ci kaso bi di vaquer à leur occupation loolu mënatul nekk ci réew mi léegi nag damaa dégg léegi malal ne altine ku am oto ku yor scooter mu mën a klaxonné ñun ñëpp ñu klaxonné mais man dafa am leneen lu ma leen di proposé parce que xeex tam aussi dañ koy mën man li ma leen di proposé mooy bu midi jotee bu dee suba la bu midi jotee ñun ñëpp ñu tibb suñuy boolu añ indil ko Guy Marius Sagna fii ci Kaffrine loolu laa leen di proposé parce que Macky Sall moomul réew mi sama sama papa léegi vieux ba wax na ko sama maam sax laay parce que nee na Guy Marius Sagna kees yóbbuwuñ ko ci benn société mu dëpp kees gi ni ko fii def ñu ngi ci réew mi di jaay dog Macky Sall di leen protéger Sénégal est-ce que Macky Sall moo ko moom mais Sénégal nous appartient ñun moom Sénégal li ma gën a kontaan loo nag mooy lii dafa dal xel parce que ñun ñu ngi mobiliser te amuñu ñaari dërëm tey bu doon politiciens yi ñoom seen bopp du ma ni sax politicien parce que am na ci ñu diin ñu gore mais sàcc yi ñu dénk suñu réew bu doon ñoom la tey dinañ dugg ci bépp gox ci réew mi yàpp ay kaar fay leen suñu alal te duñu feesalee fii kon ni mu feesee yéen ñii ñëpp seen alal ngeen jël paasal seen bopp ñëw taxaw fii dama leen di wax benn mbir man ci kanam léegi rek bi marché bi di bëgg commencé jot naa juróomi appel yoo xam ni ñu ngi jóge ci biir banlieue bi paas paas moo leen teree ñëw ci manifestation bi paas te leer na ma ni ñu ngi dox ngir ñëw dañoo ak seegul loolu ku gëm sa réew rek a koy def ñu ngi invité encore tous les fonctionnaires ak tous les citoyens avertis yi nga xam ne xam nañ li xam ci réew mi ñoo mën a porter combat bi parce que combat bi ñi nga xam ne tey xam nañ li xew ñi nga xam ni tey euh, sac yi nga xam ni ñu koy sàcc ñun sénégalais yi ñi nga xam ni yeewu nañ ci ñoo mën a porter le combat di lancé appel aux fonctionnaires nañu bàyyi ragal bi parce que mënoo nekk di fonctionnaire sa jàng sa xam-xam indi bi nga nekk nga taxaw di ragal wax dëgg ngir ñu dàq la ku bëgg sa réew doo doxalee noonu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 fii ci biir camp pénal te kenn du ko fa seeti te kenn du ko marshal